salaamaaleykum waa adduna salaamaaleykum waa Sénégal gars yi message bii may joxe nag daf maa ñor te dinaa ko génnee sama xol bi ndax li may jox ci ay message ci complain yooyu kalaame yi dafa bari gars yi lu tax nit mën a takk jabaram ci farata sunna su muhammadu rasulillahi takku ko ci farata sunna su muhammad yóbbu ko sa mu lay toggal di la paaseel di la fóotal di la yàqal di la toppatoo nga ne yow da ngay complexe di ànd ak moom di ko yóbbu resto wala di ko yóbbu weekend lu tax góoru sénégalais yi seen gel yi seen gel yi moo leen gënal seen jabar yi lu tax loolu lu tax góoru sénégal di jël gel di ko teg ci kaw jabar pour lan loolu pour lan loolu jël len seen jabar yi ngeen satisfaire leen jël leen seen jabar yi ngeen yóbbu leen ci resto yu baax yi jël leen seen jabar yi ngeen soppinal leen jël leen sen jabar yi ngeen yóbbu leen ci ay wiken end yu neex jël leen seen jabar yi ngeen di doxantoog ñoom ci place yi jël leen seen jabar yi ngeen di doxantoog ñoom jël leen seen jabar yi di leen wone lu tax ngeen complexe te lu seen jabar yi am ngeen teg ci seen bët bii pour lan loolu dangay gis jabaru nit di liggéey di am benn weer cinq cent mille nga jël cinq cent mille yooyu teg ci bët boo ko waree jël rob robb sax ne am nga cinq cent mille jëndal sa bopp robb lu loolu jigéen da nga koo war a defal jigéen da nga koo war a teral waroo xool lu mu yor da nga koo fa takk ci farata sunna su Muhammad du force waaye da ko war a bégal te bul xool li muy am waaye complexe teg seen jabar yi bët teg leen bët a bët a bët a bët a bët bët duñ leen defal dara duñ leen yóbbu fenn di leen bundu ci kër yi di leen toroxal ak di du mooyu pour na loolu bu leen génnee ci mbedd mi jàpp seen gële ji leen nabb nabbee c'est faux loolu baaxul changez votre fii jàppale leen seen jabar yi eh